ñu ngi kontaan ci gis ne ci biir eh, population bi fii nga toog ni tey ci fani gàmmu gi ñu ngi doon tabax tabax bii tabax bii tabaxuñ ko pour euh, am nañ xaalis walla dara waaye fii mën naa la wax ni université la ndax li Cheikh ma daan jàng jàngale yëpp fii la daan toog di ko jàngale ñi ko wuutu di gannaaw itam di jàngale fii lañu toog di jàngale waaye léeg-léeg dañuy toog di jàngale wam yàgg taw bi ñëw yàq suñ téere yi tasaare ñu ba njàng mi di sotti am ci ñoo xam ne dogu nañ ne lii dinañ ko xeex ba nga xam ne kuy jàngalee ci di nga toog am jàmm ñii jàng dinañ toog am jàmm ba nga xam ne euh, taw bi dootu yàq suñ njàng dootuñu tasaare dootu yàq suñu téere yi bokk na ci li tax ñu tabaxee ko ni rafetal nag rafetal la rek jamono bu nekk jumaa ji ba mu paree ñu di ko sanc président Abdoulaye Wade moom la taseet moo ñëw sanc ko bii itam bi mu paree nga xam ne ima wax naa leen ne université la parce que rôle université lay dox ñu koy sanc teew yaay ñëw sanc ko yow yàlla may nga sanc ko te comme ni nga ko waxee ci sa wax ñaar yooyu rek ñoo amee diine ñaar yooyu rek ñoo amee réew diine ak xam-xam diine ak xam-xam ñoo amee réew kon nag gis ñu ngi dégg yaa ngi encouragé diine won importance bi mu am ci doomu aadama yaa ngi koy wone te itam wone woo ko rek yem ci ne yaa ngi koy jëfee xam-xam itam voilà comme ni nga ko xamee gis nañ yëngatu yi nga xam ne yaa ngi koy yëngatu bees pour jëm ci école bi jëm ci jàngalekat yi yooyu yëpp ñu ngi koy gis te loolu yëpp mooy li nga xam ne moo mun a tabax avenir bi nga xam ne moom la Sénégal yëpp yaakaar ci yéen ba teg leen ci place yi ñu ngi sant yàlla bu baax bi la yàlla tegee ci place bii nga xam ne euh, yaa ngi toll ci ndaw encore say gént ba tey mën naa nekk gént yu foor a foor ñu ngi e, bu ñu ko ay màggat rek ñoom lañu fi daan taaj waaye tey ñu ngi fi taaj ndaw boo xam ne moog ndaw yu ñoo maase bokk lu ñuy gént bokk lu ñuy bëgg yal na la ci yàlla dimbale loolu nga bëgg pour Sénégal yëpp te wax ko yal na ko yàlla dëggal